ci yéen kaay yi. dal leen ak jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo ñu daal koy door ak enquête euh, yi nga ñu xamale rawatina kay mooy jafe-jafe yi nga xam ne euh, jamono ji moom la ñuy biti réew ñeneen ñoo xam ne te jamono ci ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe yéen kaay gi du ñu xamal ne mooy bërëbu fajukaay yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci réewum Sénégal jamono ji kay enquête dinu xamal ne maanaam daal nga xam ne rek moom moo di bërëbu fajukaay yi moom moo a feebar ña fay ne dee nag lu soxal diwaan yi Dakar ak Thiès ñoom ñoo ci tane yéen kaay gi du ñu xamal ne xoolal fi a dee dëkk ci maanaam daal dëkkuwaay goo xam ne ci maanaam daal dëkk goo xam ne jege nañ lu toll ci juróom-ñetti junni ci ay nit yéen xamal ne bëgg jafe-jafe kay yaatu na nag ci réewum Sénégal l'observateur yéene kaay du xamal ne kay yooyee jafe-jafe kay mel na nag yaatu na ci réewum Sénégal ndax ñi nga xam ne rek ñoom jël na ko ngir aaye lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllu ko dajaloo ak yu ni mel tey nag ñoom jamono ji seeni mbir dox ñu dox ba ci vox populi yéene kaay yéene kaay gi duñoo xamal ne élection yi nga xam ne rek moom la ñu dënmal nee ma atum 2024 yéene kaay gi duñoo xamal ne Mimi Touré kay borom greffage candidat ah, borom tagal gi moom Mimi Touré kay jamono jiitu réew mi Macky Sall maanaam daal élection yooyu nga xam ne rek moom la ñu dënmal na ca génn xelam tey nag du ca bopp laas yéene kaay du ñu xamale ne rek moo di mi nga nga xam ne rek wax na na njiitu réew mi Macky Sall élection yi ñu tumal atum 2024 mënut a am ñetteelu mandat da ko wax na ko moom kay nee moom njiitu réew mi moom mooy yëkk woon ay kàddu fanweeri fan ak benn ci décembre atum 2018 xam le ne maanaam daal ñaari mandat yu tegaloo atum réew mi may mais bay wax ñetteelu mandat maanaam daal maanaam jërëjëf sax ñu koy wax nekk suñu kaw la ndax njiitu réew ne moom mi mu nga xam ne nag bëri yoo xam ne rek ma ngay am ci Afrique bokk na ci maanaam nga xam ne rek dañoo nguur kàddu yooyu nga xam ne rek yëkkati na ko na nag nga xam ne rek moom moo di Abdoulaye Khouma nekk nag li nga xam ne rek moom moo di kaw la ak yëmu yëkkati moom kay dafay xam ne ne Mimi moom moo yor wàllu yoon bay wax lu jëm ci ñetteelu mandat wala déet yéene kaay gi duñu xamal ne ak lu man di xew daal Macky Sall moom te mooy yéene kaay duñu xamal ne mën naa yóot ñetteelu mandat ndax ku tur bopp la yéene kaay gi duñu xamal ne maanaam daal ki nga xam ne rek moom moo di Khalifa Ababacar Sall ak ñi mu àndal ñu ngay kar ki nga xam ne moo la ñu taxawal maanaam daal moom moo kay noonu la demee leneen loo xam ne na mu demee maanaam daal njiit réew mi Macky Sall lu jëm ci peut-être at bi nga xam ne rek bëggoon na ko si nga xam ne rek moo di yenn ci ay conseils municipaux yu nekk ci réewum Sénégal am ci rawatina ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci Dakar jàpp nañu ne dañu koy delloo ginnaaw réewum dañuy delloo dak ginnaaw fi nga xam ne rek moo di Dakar te it duñu ko nangu.